dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay yi nga xam ne moom la ñu xëyandoo yéenekaay kii di Vox Populi ak L'As ak Sud Quotidien ak waa Grand Place ñu ñu xamal nañu collectif ñoo lànk ñoo bañ niki démb ñoo ngi woon ci mbeddi Ndakaaru yi la ko waraloon nag mooy xeex lépp loo xam ne jëm na ci wàllum yokk courant gi ak Guy Marius Sagna mi nga xam ne ma ngi ci kasu bi ñu daal di koy bàyyi journal bii di Vox Populi mu ñuy xamal nañu neexul ba neexul waaye nag collectif ñoo lànk niki démb génn nañ ñu bare bare ci askan wi ci mbedd yi journal bii di L'As mu ñu xamal nañu ñu askan wi génn ni ki démb daal dinay bari loola ñu daal di takk nag ay sagar yu xonq yéenekaay gii di Sud Quotidien mu ñu xamalaan ñu collectif ñoo lànk ñoom kay dañoo ërtal nag nguur gi waaye nag jaarale ko ci mbooloo mu takko takko waa Grand Place mu ñu xamalaan ñu en tout cas li nga xamante ni moo am ba des collectif ñoo lànk ñoo bañ ni ki démb askan wi nag daat nañuy génn wuy si leena Macky Sall jamono ji war naa bàyyi xel ci mbooloo mi nga xamante ni daal maanaam moo génn journal bi mu ñu xamal naan ñu ni ki démb nag ñoo lànk ñoo ngi dooree ca buntu université Cheikh Diop bu Ndakaaru jooye li nag wuti fi nga xam ne mooy poste bu Médina Vox Populi mu ñu xamal ñu am na nag ñoo xam ne dañoo jógoon ni ki démb ngir saboter marche bi nga xamante ni mbootaay gii di collectif ñoo lànk doon nañu ko amal doon leen sànni nag ay xeer am na sax ñoo xam ne jot nañu see gaañu collectif bi nag ñoom Alioune Sané dañoo tuumaal ki nga xam ne maanaam mooy préfet bu Ndakaaru yéenekaay gii di waa Grand Place mu ñu xamal lan ñu démb ci bi nga xam ne ñoo lànk doon ko amal ndaw ñi nag bari woon nañ fa loola maanaam ñoo nekkoon ci kanam yéenekaay gii de la démb ñi génnoon ci marche bi yàq nañ lu mel ne xamee ki nga xam ne maanaam moom mooy Macky Sall doon nga dégg ñenn ñi di wax ne Macky a trompé son peuple ñenn ñi di wax ne Macky Sall dafa wor aw askanam yéen a kaay gi du Sud Quotidien ñu fekk fa Mamadou Diop Decroix moom nag la mu xamle nee na kaso bi du pour ñi nga xam ne ñoo contre Macky Sall waaye nag ñi nga xam ne ñoo def ay looxoor ay njaaxum daal di teg ay ndëgg sërëx ci kopparu jàmbur ñooñee nag ci boppam ñoo yeyoo kaso Mamadou Diop Decroix di wax ne Guy Marius Sagna dañu ko war a bàyyi mu daal ñibbi këram ndax am na fi ay farandooy makki Sall yoo xam ne demoon nañ ba ca bunt pale ba langaa miitu ci giri yi te nag dara fekku leen ca te loole nag maanaam justice bu tëddeewul njaaxaan naay lay tekki yéen gi ba tey ñu fekk fa baaba kër Diop moom la mu xamle nee na Guy Marius Sagna nag bu dee ab terroriste la ñoom ñëpp ay terroriste lañ njomba yeeg tojaanga yi nga xam ne moo am ci réew mi lépp Macky Sall la kër Diop ne Macky Sall malheur la Simon bu yaanaa maar moom nag la mu xam ne nee na combat bi daal dañu koy daal di wëyal waaye nag kontaan nañ lool ci askan wi nga xam ne ñoom ñoo daal di génn kilifa bu yaanaa Amar moom ci biir bi la mu xamle xam ne ñoo a tëdd sa kaso ba mooy sàcc yi nga xam mooy Alioune Sall ak Mame Mbaye ak Cheikh Omar Anne ak Mamour Diallo dem sa kaso ba wuutu fa nag ki nga xam ne mooy Guy Marius Sagna mi nga xam ne aw askanam lay daal di xeexal ba tey ci biir journal bi mu ñu xamal la ñu nag askan wi dañoo sonn fatigué ginnaaw bi ñu yokkee li nga xam ne maanaam mooy njëgu courant gi Macky Sall nag jamono ji daat nay fexe ba diwlin gi daal di yokku ak ceeb bi ak meew mi ak yeneen yoo xamante ni daat nay yokk lii nag muy firnde firndeel ne Macky Sall maanaam dara fereñeente wu ko laas yéene kaay dikkal ñu nag ci rapport public bu cour des comptes 2015 2016 2017 rapport ba génn naa ki tojaange ki njaaxum yoo xam ne ñi nga xam ne ñoo ànd ak Macky Sall ñoo ko def rawatina ay directeurs généraux laas yéene kaay moom mooy wax du sunuy kàddu nee na nag fi nga xam ne mooy CICES directeur général ba dafa luye ab groupe électrogène boo xamante ni ma ngi ko luye cent dix neuf yoo xamante ni teg na ay koppar laas yéene bi doy na waar vox populi ne maa la ko wax waa grand place mu ñu xamal la ñu lu jëm nag ci wàllu cleaning day bi nga xam ne Macky Sall bëgg naa dem ca banlieue bu Ndakaaru Kër Massar ak Maliko ña nga xam ne nag ñoo fa nekk collectif mbëbës dafa doy ñoom nag nee nañu daal ñoo ngi xaar Macky Sall journal bi kay nee na Macky Sall dañu ko déclaré Macky persona non grata fi nga xam ne maanaam moom mooy yëmbal ak Maliko ak Kër ma Massar yéene kaay gi nag daal di dikk ci ak njaaxum ak musiba ma ba kumba goo xam ne ni ki démb daal nañ koy atte ci tribunalum dafa am benn pa boo ne ay atam toll na si juróom benn fukki at ak juróom-ñaar paa boobu nag maanaam doroon si mari ngàññam ak ñaari xale yoo xamante ni maanaam fukki at ak benn rek la ñu am te paa bi nag su doon def fi saay-saay ak ñaari xale yooyu maanaam daf ko doon filmer démb nag la ñu ko daal di atte parquet bi nag daal di wax ñu tëj ko lu toll ci fukki ati kaso yéen kaay gi di Stades daal di xëy ci championnat bu Espagne ak der bi nga xam ne tey jii dina daal di am dox diggante Real Madrid ak Atlético Madrid bu ñetti waxtu jotee Moussa Wagué mi nga xam ne moo nekkoon ci FC Barcelona te ji ci banc bi lu bëree bëri maanaam doon damm banc Moussa Wagué moomee na daan nay jóge Barcelone daal di dem fi nga xam ne maanaam moom mooy Nice